ah ñun ah. ñoo ko choisir. waaw ah. loolu mooy sax rang yow VIP moo am. ah est-ce que yaa ngi may dégg. ah loolu ñëpp bu ñu choisir rang kon aw ma lu may wax ak yow. waaw orienté wu ñu fi ñëw waaw léegi soxna si soxna si kon jàppee ko noonu. waaw baax na parce que amoo leen professionnel. waaw madame madame madame lan mooy problème. dégg nga Euh, kon mu nekk euh, situation euh, ba tey mooy soirée Wally sekk fii ci CICES ñiy taxaw nag li ñuy woote rek mooy dañoo ànd ak naqar parce que dañu jënd seen ay billets te ñoo dugg fu mu nekk nii force de l'ordre yi dañuy jéem a xool rek. fay naa leen naka nga yaay nag. alors ñu fekk la tey ci soirée Wally Seck mu mel ne ci ñi nga xam ne duggaguñu ci lañu bokk. waa si lañ bokk. parce que dañu ñëw fii aussi ñu ne bu fees na yi tey dernier billet yi man 25000 bi 25000 laa jëndee billet de loolu c'est pas normal. VIP la VIP la 25000 on a dit que c'est 20000 mais man 25000 lañ ma ko jaay c'est pas normal du tout c'est pas organisé quand même. léegi lan ngeen bëgg yéen. ah nu ñuy def jënd nañ ba pare lan la ñuy def léegi ñun sax xamuñu lu ñuy def. on sait ah, Wally Seck. man de su ma sañoon man moom man naa ne Sénégal ñi ma gën a ñi gën a bëgg Wally man c'est la bokk mais su ma sañoon daal ñu gën a xam organisation bi. parce que nombre de places la ñu war a jël waruñoo jël ëpp place parce que loolu tamit c' pas sûr quoi tamit référence la ci rëkk bi quand même la wor a xoolaat ak organisation bi quand même merci beaucoup ok. Arma ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay yaay booy. nekk en pleine euh, li nga xam moom mooy concert bi ngeen tàmbali lan ngeen di lan ngeen di yëg lan ngeen di waajal sénégalais tey. waaw xol bu sedd d' abord di nuyu ñëpp di ñaanal sëñ Muntaxa yàgg fi te wér di jàmm ci réew bi. deux mille vingt deux deux mille vingt deux nekk at bu bu dàq ci at yi ci li ñu fekkee ci barke Cheikhul Khadim mënuñu yëg lu dul contentement ndax wax dëgg yàlla ñun rek nekk ñu fi ci artiste te c' est pas évident saa yi ñu wootee rek mu mel nii ndax ñu ngi ñu ngi di dem fu ne. pour ñëpp di xaj waaye à chaque fois da ngay gis ñoo xam duñ dugg moom la ñuy wax sax gars yaa ngi coow ci biti ñi nga xam jënd nañ tikki VIP mënuñu dugg ñi ngi dem sax bay wax ci staff Wally Seck tey lan ngay wax ñi nga xam ne dugg waaw ndax am na ñuy def am nañu xaw ma ndax am na am na ñoo xam sax tëgguñu te bu ñu sañoon di di di tëgg ñaata nit ñooy yor ñooy nekk présentatrice te kenn joxu leen micro neel damal damal nga présenté kon kay sant yàlla la yow tey bëri nga ay morom yu chômé pourtant suñu bor mënoon na la cay boole waaye kon tey da ngay sant ah mënuñu def daal lu dul sant di leen ñaanal jàmm ci barke Cheikhul Khadim jaajëf